asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp maa ngi tudd Ndeye Khady Ly coordinatrice projet naataange jigéen ñi Anguekho di nuyu sama moromu naataangoo jigéen ñi fi ñëw ñëpp tey di rafetlu aussi teewaay bi. ñu am nag euh, formation boo xamante ni si le président honorable député Malick liggéey moo ko may jigéenu campement Anguekho yëpp. taxaw ni carrément politique gu ma publiquement ma jigéen ñëpp laa bëgg a dimbali ndax ñëpp sama rakk lañu ñëpp samay mag lañu ñii samay impaañ samay jarbaat muy lu jafe nag. sa xol sottiwul tàlliwul doo mën loolu ni campement ngi xox gët nañu ma may leen formation dimbali leen jigéen ñëpp mën a am ci lu ñu jàpp ndax dëkk bi metti na ku ne xam na ne jigéen ku ko jàppale jàppale nga entreprise bu rëy parce que benn kër boo boo fa jëlee benn jigéen rek formé ko rek for nga entreprise bu rëy kon maa liggéey yal na ko yàlla fay ndax jigéen nga xool dañoo sonn développement moo ñu manqué ndax ñu dañoo tardé lu bare bari amul benn développement boo xam ne am na campement ngi xoox développé jigéen nag yaakaar naa surtout développement formation bi day développé jigéen ñi parce que dina tax kenn ku ne di ci gis sa bopp dina am savonnerie dina am euh, euh, pâtisserie dina am céréales et tant d'autres am na yenn yoo xam ne bu ñu ko see dinañ ko gën a moom gën a leer ñu ciy woo jigéenu campement ngi xoox yëpp amul xëy jàmmu seen amul ci parti bi laa bokk amul ci parti bee laa bokk dañoo bëgg a développé ngi xoox te kuy développé ngi xoox doo tànn xëy jeg si suñu formation bi nga liggéey moo ko may fi ci campement nga xoox fi ci commune bëgg ñi jigéen jàppale jigéenu commune bëgg a jàppale jigéenu naataange askan wi le 21 lay doon juillet ak le 22 juillet ci 9 h au centre socioculturel su ñu defee formation bi deux jours def ko samedi def ko dimanche su paree dañuy am attestation bu ñu amee attestation bu ñu dinañu jàppale ñu am financement ba kenn ku ne li nga xam ne moom lañ la formé soo demee sa kër nga mën ko liggéeyal sa bopp muy sa petite entreprise moyenne boo xamante ni si mën nga ci yor sa njaboot di ci fay sa njàngum doom comme niñ koy defee ñun jigéen ñi di ci nat say nat dimbali si sa borom kër parce que dina la accompagner yow nga xam ne yaay présidente bi dina la defaral këyit dina la defal registre de commerce la ne ne yaatu doo ci fay ñaar dërëm kon Malick day def te yàlla tax yàlla ko yàlla jàppale ki def te yàlla tax nag gis na ko dégg na ko ndax ñun mënaluñ ko sunu bopp man mën naa ko xëñ na waaye am na ñoo xam ne mënaluñ ko seen bopp kon na koy dimbali ku sonn di dimbali nit ki di ko tette di kon fu mu jaar pour am yi fi boppam wax dëgg yàlla yàlla na la yàlla jàppale te amoo ci xej ak seen nag li ma ci gën a neex nee na ma mamaa ma ne ko am ah, ne ma wool ma ngeex wax gépp man ku ànd ak man ak ku àndul laa yemale na ñëpp ñëw bokk ci formation bi ñu jàppale ñam seen attestation ma financé leen kenn ku ne dem dimbali sa bopp dem liggéeyi jërë ngeen jëf. salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam di wax ci turu naataange askan wi parti populaire naataange askan wi di wax ci formation bi ñu bëgg a def le 20 ak le 21 au centre socio culturel mu am trois filières. il y a des détergents savonnerie ak euh, pâtisserie la ñu bëgg a def maintenant ñu ngi woo groupement Ngeko yëpp groupement bu ne nañu indil ay éléments parce que groupement yi fi nekk on est à 41 te i paraît que groupe Ngeko am na cinq groupement gisaguñu groupement yëpp defuñu ko. ci pour parti bi dañ ko def ci jigéeni Ngeko te jigéeni Ngeko ci ren la basé wu groupement bu ne mu indel ñu trois éléments groupement fi mu ne nii groupement bu ñëwul léegi da ngay yónnee sa liste boo yónnee liste bi nga ñu jox ñu sa trois éléments yi nga soxla ci le président la secrétaire la présidente la secrétaire et la trésorière ça dépend ci groupement bi mais da ngay tànn ñetti daam yoo xam ne ñooñu ngay andi ñu boole leen ci formation bi léegi bu ñu ñëwee ci formation bi dañuy def trois ateliers les trois ateliers dañuy laaj kenn ku nekk yow lan nga bëgg a former boo bëggee détergent nga dem ci détergent kii dem te kii bu dee trois jigéen moom benn groupement mën naa am ñetti formation yi léegi yow bu ñu la former ba pare yow yaay dem ngeen former ci seen groupement yow nga former sa groupement

bu demee ba ngeen am linéa yëpp mu defaral leen dossier yi ba pare groupement bi mën naa defar ba pare dem jaay ci grande surface yi lu bëri li ñuy jënd Auchan ay groupement ñoo koy defar barki dem ba rek jënd naa Auchan lu bëri loo xam ne groupement ñoo koy defar pourquoi pas Ngeko amul benn groupement bu am ay këyit buy nekk nekk di defar ay céréales nekk di defar ay pâtisserie nekk di defar ay euh, euh, euh, kii nu mu tëti benn kii nu mu tëti comment dire pin bi ba ñu jaay ko ba ñu dégg ni groupement bi yóbbu na Auchan ba jaay yóbbu na EDK ba jaay yóbbu na bërëb sàngam ba jaay Malick loolu la bëgg comme gisu ko mu bëgg koo def ci génn jigéen ñi ngekko léegi jigéen ko nan lay basé wu ci jigéen ngekko yi xam nga mënu leen euh, mobiliser ñoom ñëpp mu former leen comme jigéen yi se sont formés en groupement léegi chaque groupement mu laaj trois femmes groupement bi yónnee trois femmes yóbbu leen former leen et les trois femmes ils vont aller former leur groupement pour bu subaa ñu mën a defar loolu. moom la ñuy dem moom la ñuy jox liste bi mais de préférence dañuy joxe liste groupement bi yëpp bu ñu joxee liste groupement bi yëpp nañu listé présidente sur kii euh, secrétaire trésorière après ñu bind les membres bind membres yëpp jox ko parce que en cas suba bu nemaree defar euh, liste euh, kii bi la. les papiers du groupement day jaar ci liste bi pour defar ko parce que la liste est très importante pour euh, les papiers du groupement moo tax mu laaj liste bi eh, mbokk Ngexo TV man la Thierno Sow coordonnateur communal bu parti populaire naataange askan wi. tey coordination communale bu parti populaire Ngexo moom moo rencontré wu fii tey. pour démarrer les activités parce que ñun dañuy ñëw ren am taxawaay bu bees boo xam ne dañ ko war a andi si Gekkoor donc ren li ñu andi moom mooy naataange suñ programme politique mu ngi tudd naataange naataangeexoo léegi naataangeexoo dafa am ay rubrique yu bëri donc bokk na ci naataange jigéen ñi naataange ndaw yi naataange ndaw yi moom mooy naataange bi nga xam ne nii mooy programme dañ ko bind pour la jeunesse nga xam ne le responsable des jeunes Fara Fara Diagne Fara mi nekk sama moom moo koy moom moo koy piloté donc tey nag dañ def naataange jigéen ñi naataange jigéen ñi maman Ndeye li moom moo koy coordinatrice bi euh, bon mu dajale jigéen ñi fi nekk ñu ngi fi gis ñoom sama maman yi fi nekk yëpp donc naataange jigéen boo ko déggee mooy nan la ñuy def ñun ba rompre li fi doon am li fi doon mooy lan Moi, bu dañ seetlu l'élection bu élection politiciens ont wacc dëkk bi dem wër wër groupement yi ñi jox leen 200 000, jox leen 300 000, jox leen 500 000. élection yi passé kenn dootu leen gis 200 ñu jox la nga ci fan après mu donc nous on a dit non on va faire plus on va plus faire ça Les ce qu'on va faire moy comme il y a des groupements dañ leen organiser en GIE donc actuellement ci suñu phase répertorié nañ 43 GIE 43 groupement du moins donc 43 groupement yooyu léegi dañ leen defal formation formation bi mooy nan la nan leen dañ leen di ñoom ñu rendre leen autonome ñu mën a doxal seen bopp parce que loolu moo gën a important kay ngay fay nit ki xaalis donc nit ki da nga koy jàngal mu da nga koy jàngal nu muy nappee moo gën chaque jour nga koy may jën donc ñun suñu suñu politique yëpp loolu la politique de développement bi ñu andi mooy tut ngexoox développer développé à travers des activités des actions donc programme n'a pas yi aussi non lay démé mais comme tu jigen ñoo ay mo gis moo tax nga fi gis donc jigen ñi ma di féliciter au passage ci cette euh, mobilisation mobilisation bi rafet na donc léegi maintenant programme pas jigen ñi Mass moom mooy chef de projet bi bon awa mo fi mo fi waroon nekk tey mais yaram dafa soutante newu fi donc Mass mo jëralé relais bi moom mooy continuer le projet diko piloter accompagné de ces braves femmes là nous avons le 21 la de formation formation nous avons fait le centre bi le centre socio-culturel donc formation sera le le 21 et le 22 Pour la formation par ñu jox leen attestation jox financement accompagner leen parce que nous, ñu yem financement parce que nous, jox ko ta xamul nan la utiliser aussi c'est un autre problème boy créer donc ñun bu leen di accompagner di def suivi donc bu ñu la bu ba un mois projet un la joxone financement un la joxone fan nga tollu lan nga ci investir fan nga am problème ñu corriger di la di la encadrer parce qu'il ne faut pas oublier que le président Malik Malik bi secrétaire général du parti c'est un ingénieur financier donc un ingénieur financier ça veut tout dire donc tout ce qui est finance nous on sait comment aider les gens à les encadrer donc on va aider les femmes bu jëlé jëlee joggé ci femmes après dañuy continuer programme naataange jeune yi Fara mooy jël relais bi naataange jeunes passé amna benen benen projet yo xamna ni Malick bind ki Mass bind nako mom moy mooy naataange sport donc bugguma tay ma décliner la feuille de route mais projet yi bari na. question bara ñun bi ñu jógee ne jigen jàppale jigéenu Ngexoox ñu jigéenu parti populaire dañ na toute la couche ngexooxoise jigéen jigen ñep lañuy toucher au maximum ñi am peut-être am na ñoo xam am nañ information peut-être amuñu ko donc motax tax ma liste pour l'instant 41 lañ mais aux dernières nouvelles wax nañu légui ni que 45 GIE mo fi nek donc ñu notre objectif c'est de toucher les 45 parce que beaucoup ñu ay def ay xaj ak sen toucher ñi baña toucher donc comme ñun ngeexoo moñ ñu tax a jóg lañ leen la inviter du affaire parti politique parce que bon parti politique dañuy financer les femmes qui sont au niveau du parti mais dañ ko ouvrir à ce que la population wa gis seen bop parce que man dus man fi ma franchement di xey suba di gis suñu yaay nek stade di wut chaque jour benn 10 francs 20 francs bi ñuy gagné en fin du mois te après du ñu am benn retour sur investissement donc man je préfère ma faire ma ñu formaliser len formaliser len moy lan wotal len keuyit bu amé keuyit këyit ñun forme sous forme de GIE bu produire sen produit légui sen produit mun na présenter si grande surface comme niko madame Diédhiou waxé légui donc mun nga présent au niveau de Auchan parce que surface de vente yi bari nañ mais lan mo la fay dugal moy ay keuyit donc keuyit yooyu ñun dinañ len ko wutal ba paré accompagner len donc ça je pense ça c'est très important donc de passage may remercier encore l'honorable député Malick Guèye bi mu initiative boobu jox ñu ko ñu piloter ko je pense que mo dañ ko piloter def ci liñ ci wara def yépp xaar fi mu jaar dina fa jaar dinañ leen encadré bañ am réussite incha allah boo ñun dañu rompre la politique bi fi amoon parce que man maa ngi soog a feeñ ci politique parce que justement aujourd'hui la politique boo nee politique rek gars yi ñu la non duñu waxkatu dëgg ñun dañu andi beneen beneen type de politique boo xam ne nii c'est pour rompre li fi nekkoon moo ne que la l'homme politique peut dire la vérité parce que ñun dañu nekk di doxal ay entreprise yoo xam ne nii dañ fay liggéey ñuy jox ñu ay ay ñu koy diriger ñu ñëw def fa résultat man mii tey man rus naa franchement ñëw digge fi loo xam ne du ma ko def parce que mosuma ko def fi ma jaar yëpp si ngeexoo ay sa yaakaar laa njëkkee def naa fa résultat def naa fa ay résultats yu am importance te branche kenn mosuma tudd ci yenn affaire ay xaalis ak affaire yooyu dem naa ay sengi xaw ma dégg ci yenn affaire yi man sama sama image ma gënal yooyu man sama image du ma ko yàq ci ay 100 francs wala 10 francs bu jàdd nit yi moo tax man ma dugg ci politique sama engagement politique loolu moo que au moins cadre boo foofu koy defee mais dama ne su ma demee ci beneen parti damay fekk parti jàmbur la parti bi waa ngi xaw moomuñu ko da ngay topp si ginnaaw gars yi li nga bëgg am doo ko am mais man cadre kan d'expression bima bëggoon parti populaire la ko amé parce parti bi xol lañ ko créé do ko créé ngeexoo la dëkk man ma dëkk xox donc man en tant ngey xox wa man ma convaincre sam bop ñeu rejoindre parti bi mais du nit mo ñeu jël ci mo wala kii an non non non man ça marche pas comme ça sumay dugg ci dara idée mo fay duggal ak projet bon légui lim pour pour mën a xuus si buñ buñ dajalé les femmes ba defal leen euh, ki bi formation bi donc dañ né ñu jox leen liste bi Massamba ngeen di jox liste bi

un projet bon finalement vous parlez de bu formation vous commencez commence automatiquement le 21 juillet le 20 le juillet avec le 21 juillet Inch'Allah, c'est sociaux bi nekk votre chaîne Ngeko TV. Ngeko TV, c'est une chaîne télémédia Bilen Gnadjegé. Pour vos reportages, les émissions, couverture médiatique, vos publicités, Ngeko TV, Indil Nalen Lubes. Avec une équipe pétrie de talents médiatiques. Niekor TV, un autre élan de la médiation sénégalaise. Partagez et abonnez sur votre chaîne Niekor TV.